ak yoon fi nga xamante mooy diwaanub Sénégal muy séjour irrégulier waaye tamit outrage à magistrat ak yeneen mbir yi nga xamante ne moom la ñu ngàll ci ndoddam ca jamono jooje baro bu Paris ci biir yéenekaay bi ñu ñuy xamal ni mer ba fut la ñu def taxaw tembey tamit ngir fas yéene fi jëlee Juan Branco moom maître Branco ab nappkat la tegoon boppam Vox Populi di ñu yëgal ni ci anam yooyee la ñu ko tegee loxo ci ab gaal bi nga xamante ne ci la duggoon doon wutali réewub Mauritanie yéenekaay bi di ñu ni kon bokk na ci luñ koy toppee wàllub complot ci attentat fii ci réewub Sénégal Sénégal Juan Branco mi ñu denc ci Sénégal enquête quotidien di ñu xamal ni kon dund na fi ñaar ci ay fan yu métti métti na dëgg ci Juan Branco bu ñu sukkandekoo ci l'Observateur muy wax ni lu ñu ngàll ci ndadom bëri na lool yéenekaay bi dikkaat na ci ab dossier bi nga xamante ne diis na lool te boo moyul avocat français bi dinañ ko yóbbu ci instruction dossier bi nag li ko gën diisal mu ngi ci biir yéenekaay bi di Le Soleil te ki ko def du kenn ku dul procureur la République li moo bi la bu sensible ak sang bi nga xamante ne daf koy méngale ak téeméeri jafe-jafe jafe-jafe gën di bëri libération di ñu xamal ni kon parquet ci boppam ubbiyaat na beneen procédure bu bees ngir Juan Branco yéenekaay bi di ñu xamal ni avocat bi ci boppam dik moo ko teg loxo ca Mauritanie laata mu koy indi ca prison bu Rebeuss ba ñu ko tegee loxo enquêteurs yi dañ ko wan ni dafa am ab mandat d'arrêt international ngir appel à l'insurrection yi mu doon woote waaye tamit ay manœuvre yi nga xamante ne dañoo jàpp ni dafay salfaañe karange bi réew mi ba ci sax fësal ay kàddu yi nga xamante ne dëgguwul waaye ba démb ci dibeer gi libération dañu xamal ni moom Juan Branco pat la daa di maye ci kanamu ñi nga xamante ne ñoom ñooy enquêteurs yi enquête bi ndax dina wéy loolu jar na laaj ndax les écoles lim ñuy xamal tey ji mooy Juan Branco mu ñu teg loxo ci Sénégal dafa mel ni ab xal la bi état bu Sénégal téye ci ay loxo mu koy lakk mu war a nekk lu métti ci moom kii dund lu métti kay mooy Ousmane Sonko ci boppam réew mi quotidien dañu xamal ni kon ji tembe dañu ko yóbbu ca bi les échos di ko dëggal di ñu xamal ni kon jamono ji ci anam yu doy waar la rawale ko ca urgence ca urgence bu hôpital principal le quotidien di xam ne ni kon foofu lañ ko daal rawale moo tax yéenekaay bi di ko méngale ni ab dossier sans di ko ci feelu jàpp ni Sonko ci boppam jamono ji bu yóbboo ñu jóg ci moom ndax grèwu xiifal bi nga xamante ne soobu na ci boob ak léegi tax na ba ci anam yu doy waar la nekk jamono ji moo tax kàddu yaa ngay jib ci biir 24 heures waa Pastef jàpp ni lu jéeg njaag état bu Sénégal mooy njaag te lu ko ci fekk rek ñu jàpp ni ñoomi neen la kàddug docteur bi di xam ne ni Sénégal bi ñu bëgg mu ngay artu gouvernement bi ci boppam ci responsabilité yi nga xamante ne war na ko jël gannaaw moom Pierre Goudiaby Atepa moom ab bataaxal la daal di bind jagleel ko njiital Pastef ci boppam mi nga xamante ne mu ngay sàkku ci moom mu daal di fexe ba dakkal lii di gréewu xiifal gi mu nekkee Sonko rek nekkul ci gréewu xiifal ndax libération moo ngi limal ñeneen ñi nga xamante ne kon ci anam yu doy waar yooye la ñu nekk bokk na ci Cheikh Bara Ndiaye Hannibal Djim ba ci sax kii di Pape Alé Niang nga xamante ne ñoom ñëpp jamono ji ñu ngi ci biir yor-yor waa FRAPP ñoo ngay dànkaafu nee ñu ñi ñu duppee ay détenu politique jamono ji seen bakkan mu ngi ci xottu gerte Aminata Touré nekkoon ci yoonub marsasum waaye tukki bi mujjuta antu yéenekaay bi di li quotidien moo ñu yëgal ni moom premier ministre ba woon ca frontière bu Gambie lañu ko daal dàqee mu dellu siat ci Ndakaaru gannaaw ba mu doon jéemee jàll rek dugg ci fi nga xamante mooy diwaanub Casamance service de sécurité yi nekk ci kër Ayib ba Karim 2024 yi Sud Quotidien duñu yëgal ni ni ki barki démb la ñu daal di soppar ñi li nga xamante ne moom mooy code électoral bi mën a tax ba ñaar ñooñee mën na bokkaat ci ay élection ci Sénégal le mandat di ko ci fekk ne Karim Wade ak Khalifa Sall jamono ji tembe nekkaat nañu ay électeur te mën nañoo sàkkuwaat baatu askan wi ñoom ñooñee war a sàkku baatu askan wi la tribune yéen kay jàpp ni ay sàcc la yi nga xamante ne dañ leen fas yéene boole ci ay élection fexe ba Ousmane Sonko di ci bokk yéen bi di ko ñaawlu ci biir la tribune li ko waral article L57 bi nga xamante ne ñu bëri ci député yi ñoo ko wote ci samedi gi ci assemblée nationale assemblée nationale waneeti boppam ndax yor-yor dafa jàpp ni ab institution bi nga xamante ne la ci ay mbir yu doy waar te ñaaw rek lay yëngu moo ne de lu ñu doon xaar ci assemblée ci boppam mu nekk ab espace bi nga xamante ne lu ñu fay waxtaane bokk na ci njëriñal askan wi waaye wuute na ak li nga xamante ne moom la assemblée nationale bii di doxee ndax Karim Wade ak mi nga xamante ne fexe nañu ba ñu bokkaat te leen di toppee bokk na ci alalu askan xamante ne dañoo jàpp ne dañu ko jël ci anam yu leewult leewam déet Khalifa Sall ak Karim Wade léegi mën nañoo bokk ci ay élection présidentielle noo ne la ko l'info yéene kay xamle bu fekkente ne Karim Wade ak Khalifa Sall mën nañoo bokk ci biir benn Bokk Yaakaar ba léegi xamaguñu ana kan mooy doon seen candidat coow laa ngay wéy xëccoo li gën di takarnaase waaye source a lim ñu yëgal tey ji moo di kii di Amadou Ba la war a doon li tere nag yëf yi siw yéene kaay bi di ñu xamal ni bokk na ci ay résistance yi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ci biir Benno Bokk Yaakaar sax ca jamono jooje yeneen ay candidat ñu ngay wane seen ñàkk ànd bokk na ci Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ne tàmbale na sax ay tournée waaye yéenekaay bi mu ngi xamal ni kii di Amadou Mame Diop noppi na ngir daal di tënku ci dogal bi nga xamante ne njiitu réew mi dina ko jël njiitu mi mi jël na dogal ba noppi ndax direct news mu ngi ñuy dëggal tamit ni amadu baa ci boppam moom la Macky Sall daal di taamu Walf Quotidien ay kàdduk Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa la dikkee ni ki tey ji gouvernement bi seen taxawaay rawatina jëmale ko ci seen opposition ba tax moom kilifa gi li mu ci gis mooy gouvernement bi amul opposition moom gisu ko mu daal di sori gaynde yu Sénégal yi sori nañu ci Afrobasket 2023 waaye mujj ñoo jël ndam li Rewmi Sport duñu yëgal ni Aya Traoré ak i ñoñom dañoo ñàkkati final bi seen diggante ak Nigéria ñeneen ñu yootu final muy Kalidou Koulibaly ak Sadio Mané ndax coupe arabe des clubs bi nga xamante ne ma ngay woy ñaari gaynde ak seen yi nekk ci Arabie